ay programme yu mucc ayib gëdd seen ngëm-ngëm yeesal seen xam-xam ak di dundal seen ru bés bu nekk FM mën ngeen ko am ci Dakar ci 97.3 ci t ci 103.9 ak internet www.asfiahi.org ak ci téléphone portable ak ci réseaux sociaux contact 78 459 30 30 Asfiyahi leeru Tivaouane daarul xabiib yonent إلى الله لا الله Pedro tagg na yeneen xam naa ni tey fa la ñuy dugg waaye bu ma fay dugg tey dama koy may sama téer bu baax boobule Mamor Samb yow laa koy may waaye bu ma la ko mayee dinaa ko may mbooleem koo xam ah, eh, la nekk naa leen ko ñoom Pape Anne Ibrahima Silla Salaire ah, soxna Seynabou Samb Salaire doom Khadijatu kontaan bu baax a baax ñoom ñëpp may naa leen ko Maodo tagg na yeneen mu ngi noonu tey foofu laay dudd dugg te mooy waa Abdou Moutalibine eh, bunt bi nga xamante ni moo nekk ci ginnaawam mooy bunt bi nga xamante eh, اقلب يا ويل أبرهة ضلت مكيدته إذ ما يسوق فيولا حاسد الحرم loolu lay firi tey dégg loolu Omar euh, léeg-léeg euh, bayit bi dama koy faral di utiliser ma ni leen nga dégg a di gaar wala sëriñu jàmbur wala mu ci wax dara wala ñu ne ma ah Mouhamed doo def vidéo wax ci nangam man leen du ma def du ma kaasal kenn ñu ne ma lu tax man leen laajal Abraha ak Abdul Muttalib ah, Abdul Muttalib ah, bi mu bi Kaaba gi pare wala bi ñu nekkee ci Kaaba gi affaire yi dox euh, commerce bi dox kooku nga xam mooy Abraha dëkk ba mu nekk moomit it daal di fa defar benn benn tabaxam daal di ko tuddee Kaaba moom it am benn waay bu tëdd ba guddi Omar daal di fay def ay neefare diw ko fa takkal ko ba mu takk rib ndeysaan bi Abraha yeewoo gis mu daal di xeeñ gis mu taq mu ni xam naa ni waa màkk génnuñu ci waaye daal di dajale ay ñaayam màng leen ni leen par leen dañuy dem màkkatal mu karama dañuy toji kaaba gi ci gàttal bi mu demee ba tollu frontière u màkkatal mu karama gis téeméeri giléem ak lu topp mu laaj ku moom giléem yi ñu ne ko ki jiite màkk mu ni doo Abdul Mutalib ñu ne ko waaw mu ni sa fait l'occasion xaaral ma daal di jël giléem yi téye leen ngir cokkaas ko bu wootee xeex ma xeex ak moom ay dem ay ca Omar mu ngi noonu waaye maam la Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu xoolal Abdul Mutalib ah, ma ngay wër ay gilee moom di wër ay gilee moom ba jàkkaarloog Abdu Abraha Abraha ni ko lu xew mu ni ko gilee mi may borom mu ni ko boo moomee gilee mi nag yow kaaba gi nag mu ni ko kaaba gi moom sama yoon newu ci kaaba gàngoog yaa inna lil bayti rabbun sawfa yaxfazuhu azima qawmika la abri siwa naami bu dee kaaba gi la tax a jug mu ngi ne sama nga toju ko waaye gilee mi moom maa sama alal a gileemu abraha gi gileem gi ci boppam dafa wàcc sujjóot naka te la muy sujjóot kenn gisu ko gileem gee ko gis alaaji Maalik lu mu doon sujjóot mu ne xam naa ko taaru abu abu abu euh, nu mu tudd Abdul Mutalib mu ne déedéet ndax waaye Abdul Mutalib mu ne déedéet leer gan la mu ne leeru Abdul Mutalib gi newoon ci ndiggam di folote ngir sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ca ñu dem عنا محمد مختار سيد الحاج مالك نواب يدعو إلى mubtahidan moom mu ngi noonu abdul mutalib taxaw na daal di aj ay loxoom ni waa màkk génn leen dem leen ca ginnaaw xeer ya bàyyi leen ko ak kaaba gi ma ngay ñaan nan ya ni ya kaaba gi kaaba ngi tamit eh, ndigal rek lañ ci am di la ko téyel ndax lan eh, jàng nañu histoire ci yeneen téere man ibrahima ak ismaila boo xoolee abraha nag ak kaaba gi ba mu koy yàq nag ah, yàlla dina nu xoolaat mbiri nag waaye mu ngi noonu moom malik di gi ko mu jëm ca kaaba gi bañ eh, mu كون واي دال ديغل سيد الحاج مالك في علم ترى ما يسي صدور لمن غرله زم ان يلا واتي علم ترى كيف فعل الله الحاج هلال القوم غرة ngaa ñëwaat rek alors loolu day la talaata euh, bu ma ci tollee sama xol bi day daal di sedd ngir lan euh, Maodo tàgg na yoneen alaaji Malick xilaas bi nga xam ne dafa neex a neex a neex Sëñ Babacar ba muy way xilaas alaaji Malick bi nee na ko sa xilaas bi nga xam ni bu ko nit ñi waye xeer bu ko mënti waaye dañuy jaayu fa yàlla raaxina yu melul xal baax waxu wa xaraa kenn du Seydi alaaji Malick si nga ne lan def leen ni Mahamadou déggal xoolal Abraha yow Omar oto laay indi xam nga oto laay indi te indi ma sama oto beneen oto laay indi boo xam ne marque oto bi rek amee naa la 5000 francs te oto baa ngi nii tout près Alaaji Malick nee na gaa yaak jak taw laay toll lëngër naa maa mi sallallahu alayhi wa sallam waaye yéemu ma waaye xam nga lu ma yéem ñu ne Alaaji Malick li ma yéem ci xam-xamu Alaaji Malick mooy gileem nga nga xam ne moom la Abraha waroon Alaaji Malick bi mu tudd mu ne Abul Abbas xanaa kooku xanaa Omar war ngaa yéemu ci Alaaji Malick ci ndeysaan wallaay waay waay waay fa yaa man raama lay laa li misaali habibuha binaari bi saali kenn Cheikh Seydil Hadji Malick ñu dem Omar nga ne الرحمن حين أتوا حين أتوا طيرا أبابيل ndigal Alaaji Malick si mu ngi noonu Omar euh, Cheikh Seydi El Hadji Malick di ab Abdou euh, mamme wuti kaaba gi tëw a dellu ginnaaw yàlla daal di yónni ay picc yoo xam ne picc mu nekk yaa ngi sex benn xeer xeer woo xamante ne ñu ngi ko jëlee safara min si biir déggal Alaaji Malick tër mil euh, mil irami ndeysaan ña ngay daw picc bu nekk nag xam nga xeer bi nga yor ban bopp nga ko war a sànni gaa yaa ngi ci jëlee ya gaa yaa ngi ca fase ña ngay daw songi kaaba gi Alaaji Malick daal di la déggal loolu fii alam tara maaye fii si zamaun yalla dan alam tara ndax gisoo kayfa faala rabbuka bi ashabil fil naka la yalla jëflante ki nga xamanteni tuddu sax turam mom yalla ngir personnalité ndax mom mom mom ñay te ñay dëgërul bop dañ leena imposer waye imposer bi leen imposer ñay ay proposer ñom dañuy delu dëkk ba ñu neewon waye dañuy delu makkatal mukarrama waye xolé yalla ni mu yéme mbolem ko xamanteni rek andon nga abraha bu la xeer dalé da ngay melni ku gaana waye yalla normal nak ñay yi nga xamanteni mom lañu waron ba benn ñay nekk ci gaañu moom Abraham moo ci mujjee dee te daw ba duggaat dëkkam ba toog këram ba jàpp ne du ko dal am picc mu sab mu téen ibbi gémmiñ nga xeer ma dugg ci gémmiñ bi te loolu laa di màgg Oh, koy teral Abraha jamono jooju amul doom Omar Omar dama bëgg ngay déglu Alaaji Maalik ni muy def sallallahu alayhi wa sallam Abraha boobu la jamono amul doom tuumuranke na dëkk ba nga may metti ca Makka yàlla ci boppam Abraha daal di ko ñaan ni ko yàlla may ma ay doom boo ma may ay doom dinaa ci mës a rey kenn jaamoo la ko Alaaji Maalik moom lay expliqué la yaxrijanna minka ilaahi minka man tabiat lahul xalaa'iqu min jinnin wa min nasami yàlla nee ko dinaa la may ay doom waaye ci biir doom yooyu am nga ci doom joo xamante yàlla dina génn leer ci moom jinne yi dañu koy topp nit ñi dañu koy topp sallallahu alayhi wa sallam waaye laaji Maalik a mën a bind waaye ak kan bi abin jaarale si Omar Omar Omar boo xamee sama soxna nan la tudd amee naa la tina 5000 doole la ko boo xamee sama soxna nan la tudd waaye tamit pour wax la rek kenn du yàlla alaaji Malick alaaji Malick ngay yéeme alaaji Malick nee na buñ fa jugee Abdul Mutalib ki mu takk xam naa ko ñu ne alaaji Malick mu ne xam naa ko Faatumatu la tudd ñaata doom la ñoom alaaji Malick nee na xam naa ko du ma la wax limu doom yi waaye turu doom yi sax Seydil Haaji Malick nee naa la ko wax del teg écouteur bi may waxtaan ak yow Omar nag da maa gën a dégg tey kontaan nga formula indaale gis nga

زبير وعبد الله خير

ولا تفضيل رجاء البرايا يوم مزنا من كل وصف حميد على تفضيل رجاء البرايا يوم مزنا مصطفى من كل وصف تفضيه للرجاء البراء يا يوم من كل وصف على البراء يا يوم مزدع مولانا من كل وصف حميد ماذا أفعال تبديل ما جاء أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحزب والإمام ko sànq yaa ngi tolloon ci wa abda kaabata jaat minhu abda manafin maa zubayrin wa abdillahi xayrihimi umaymatun baratun bayda wa atikatun arwa ashiqa abdillahi faxtanimi ñooñu ñooy doomi abdul mutalib yi ñooñu la maam Cheikh Seydil Haaji Malick daal di lim waaye tamit caati abdul mutalib moo tax kër kër daal balaa muy neex am caat nee naa leen yàlla daal am lu mu def ci caat xoolal taawu abdul mutalib jurul sallallahu alayhi wa digg ba jurul sallallahu alayhi wa sallam moo tax kuy taaw caat fopp la gën ndax njool màkka nag itam kaay xamal la ni njool màkka caat baa ko jur abdullah yi mi nga xam ne mooy bàyyi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi ma yàlla defee caat ñu tuddee ma yonent bi omar dama cee kontaan man maay caat waaye képp kuy caat rek daal dinaa la bëgg ndax kat abdul abdul bàyyi nabi nag sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon caat abdul mutalib moo tax yàlla daal di jël leerug sallallahu alayhi wa sallam daal di ko def ci moom moo tax cheikh seydil haaj malik bi muy liir ba bi muy wax ba toll ci abdalaye kulli xayrihi mi abdalaye leen gën arab yi nag ñoo gën ñu dul ñoom biir arab yi xuraysh leen gën biir xuraysh askano abdul mutalib fa gën askano abdul mutalib ci seen biir bàyyi sallallahu alayhi wa sallam moo ca gën nag ndax euh, fa kam wa kam min abdin soora za sharafin bi ibnin kama xada ala rasulillahi mi adnaan fal urbu xayru unaasin summa xayruhum quraysuhum koo koy bàyyi sallallahu alayhi wa sallam omar foofu laa yemale Maodo tagg na yonent bi ay ca mooma fa daal di jugee nag ah, ba beneen yoon ma daal di leeral li ci des nag doom yu jigéen yi daal di ko indi nag ay ca fan la jaar moom sallallahu alayhi wa sallam ñu ne gi yéen ñu ne gi yéen tànk las topp heure bi nday sàll sama doom mais Omar kaay ma wax la benn affaire boo xamul Omar xam nga tamaate Podor. gis nga ni ma sawaree nii Omar ndakate tamaate Podor dara du moom laa ilaha illallah Omar xam nga cere dafa diis mais boo bëggee cere ju gaaw a rees piir piir piir tam xarit ji fexeel boobu tamaate Podor boole ci Omar couleur bu rafet rek tamaate Podor a ci aay xoolal xam nga nu may def damay xëy suba gi jënd mburu spécial dajji benn pot musuma xam ni tamaate Podor mburu Omar nii la àndee te neex tamaate Podor bi laay jàpp di ko càpp ci mburu bi xoolal tey bi ma yor fan yi xoolal voix bi ni macha allah temps bi laay téye laay jël ji ah, waaye tamaate Podor dara du moom nee naa leen eh, képp koo xamante ni rek yaa ngi bëggee Daaru Habib bi maa ngi lay ñaan ci barke Seydil Hadji Malick mi ma ànd bokk ak yow di bëggee Seydil Hadji Malick si ak foo mën a nekk maa ngi lay ñaan del jënd tamaate Podor di ko utiliser lii ñoo fee la force mbooloo mooy doole ku koy jënd di ko eh, eh, jëfandikoo sa lépp loolu lekk yàlla na ci bismillahi di jiitu yàlla na ci alhamdulilahi rabil alamin di mujj bi waaye bu gisoon tien bi dañ xam ne dara du tamaate Podor léeg-léeg damay xëy yàqamti xool sama diw du ma ko gis jël tamaate Podor bi rek daal di woo daal di génn ay ca ñu dem Baye Mbaye doon ne Cheikh Mansour tam nga la mbay lim sa nganeel ma ne fukko mbay ne Serigne Moustapha cërëm Seydi Jamil cërëm waaw Moustapha cërëm dafa leer Seydi Jamil cërëm dafa leer Sëriñ Moustapha cërëm Seydi Jamil ay ca soxna Ndey Mari Fall lay bëggee di la sama xarit boobu nga xam ni bu heure bu baaxee day lépp lu muy def waaye xam nga ni fu 11h daal di jotee xel mi day dem ca mbaaruk Sëriñ Babacar Sy ba ñoom Sëriñ Moustapha Ndaw ma nga fa euh, euh, chef de quartier ñoom Oustaz Baye Zal sama sëriñ ñoom Oustaz Papa ñoom ñëpp ña nga fa maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen bëggee bu ma demee ba 11 rek yéen ak Anta Mbaye laay may heure bu baax bi kenn du Abdou Aziz Ndiaye heure boobu waaye kenn sàmm ay ca nga ne lan Baye Mbaye tey di jëmil caram moo ne ku ne ñaan nga am ci sa sa njaboot doxal ci sa tur moom la am te wax na ko may ne aaji abdu sopp na mbay aaji abdu sopp na mbay aaji abdu ay ca jabel sekk nee na ma jamono bi bu ma lay déglu ma yéeg ba ci kaw étage ba bañ ko ma euh, euh, déranger daal di toog nank wéeru man ko moytul de nawet la nu nekk après la pluie c'est le bon temps ma ni leen xanaa ki dul seen ay wax loolu ak ki dul temps waaye ñun ñu dëkkee ci banlieue bi après la pluie de c'est le bon ñaq ngacc da ngay ngacc ba génn tere ay ci ñu daal di dem Omar nga ne aji abdu sopp na mbay xaar tijaan yi bisu si yaar ba saw ya mbay si moom këram ga aji abdu sopp na mbay aji abdu sopp na mbay aji abdu sopp na mbay aji abdu sopp na mbay aji abdu sopp na mbay xaar tijaan yi bisu si yaar ba saw ya mbay si moom këram ga moom jàkkam ja yilif raw doom waaw waaw waaw ara caabi jaw caabi jaw moom dama kaa gëj a dégg caabi maa ngi lay nuyu di leen béggee Mansour euh, Ndiaye euh, maa las yaay yi bokk ci ñi nga xam ne ñoo taalif ba jëme ci kër gi euh, maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziare di ko kontaane bu baax a baax a baax moom sama waay la sama lépp la Fat Thiam sama doom nuyu la ziar la sala cub ñoom ñëpp bu jamono ji jotee saan bu ma déggul ci rajo bi dañuy jaaxle loolu waaye bu ma dellu see ñu daal kontaan bég lool Thiam mu ngi noonu ay ca Baye Mbaye nga ne lan aaji abdu xaar tijaan xaari doomam ufu sëtam ya ufu këram ga ufu jàkkam ufu rawdom xaar sëtam ya yal na yàlla ko sunu ngëm nu yóbbu ko sunu ngëm nu yóbbu ko sunu ngëm nu yóbbu ko Cheikh Tidiane yaay ki nu doy Asfiyahi FM si yaay ki nu doy Cheikh ma fent fi way maa ci feelu lu jaam bi fi xëy way sangam te way wadu jay moo taxiti na ko sëñ mu ni mooy kan sëñ mu ni mooy kan sëñ mu ni dal ci tool ab cëram dundal na ko jaajëfal maktu jaajëfal maktu kër gi jaajëfal maktu nguur gi jaajëfal maktu sëriñ si jaajëfal maktu lan moo tax jaajëfal maktu bay mbay lan moo tax jaajëfal maktu bay lu tax bay mbay wax ma lu tax bay mbay lan moo tax bay mbay doon de lu tax ah góor gi wax ma lu tax yow lay déglu lu tax kan la liggéeyal ak lu mu ko liggéeyal indil ma turu kan la mbay mbay ma déglu la kooku kan la ay ci ñu dem muy kan góor gi bay ko na juma góor gi bay ko na juma dal di woolu ko lan say gaaraat daal di ko def nan fam bu bam solal lu mu ko ci tagal mooy Seydil Hadji Malick wàcc na defaloon bàyyi leen bàyyi may waxaat ko lan moo tax lan moo tax bàyyi mbay lan moo tax yow laay déglu ay ci ñu dem mu ah muy xam nga ab kalel loxo bu seetee ab kalel loxo bu seetee jëf ba mag ña xëy ni ko tey yaanu doy samp ko ay xuldu tax ñu sempi ko yàlla yonen Cheikh tërëndoom Maodo Malick Seydi Mbay Aji Mansour waaw waaw moo ko woo ana taalibe ak timis ni ko lan jëkkëram dégg loolu Cheikh Tidiane ñooy ndigalam ànd fa ndigalam sax Amad waaw waaw mooy magi kii Aji Mansour dégg la Aji Mansour Aji Mansour may Habib jox na ko téere ba nu mu ko def atu daaw mu daal atu daaw ndeysaan ren mu dem daal def lan bay Habib bay Assis bay assis bay assis bay assis Moustapha bay Jamil bay Jamil boo demee Faas laaj ko ko Aminata Sow ay ca mu ngi noonu di ko kontaane bu baax a baax bu dee bay Jamil sama xol bi day daal di sedd bay bay doon na nga ne Omar xam nga tax ma yooxu tamaate Podor bee baax damay xëy di woo génn rek génn xoolal bi ma tamaate Podor bi Omar mën nga ko diwoo jàpp jom nga jàpp càpp ah nga xiif jël tamaate padoor bi ibbi jël mburu càpp ci tam xarit baa ngi ñëw cere daa dis ñun la boo lekkee cere mu gaaw a tëdd doxantu tamaate padoor ne la assuré naa la lekk ma léegi léegi tëdd léegi léegi mu rees léegi léegi loolu lu tamaate padoor mënu ko dem leen ko ay sa ñu daa di dem nga ne lan moo ko wax ah kooru ren muy gërëm maa la xoloo naan lan Cheikh Tidiane Aminata Sow maa mag lay bëgg di la kontaane nga ne muy fiiri alquran ca këram nan lan Seydou Nour Seydou Nour moo ko jox jàllabem ca Dakar sand kurusu ba gàmmu la maa ko woy waaw waaw maa ko déglu Daaru Habib yi ñëw ma teg ko xale yi fekkewul di ko déglu mu mel ni tey bay doon de yàlla yàlla yeesal gudd euh, muntaga taal muntaga taal bay me njare Muntaga Taal bay ma gay njare bay la min bay la min bay ma tar jiin bay la min bay ma tar jiin aji mud baddu mbur aji mud ak kan baddu mbur ak kan Gey ak ci mbuur ak kan Moussa Seck ak kan bay aji Siise me dëkk kees waaw waaw mag ñi yiw ñi mag ñu yiw ñi mag ñi yiw ñi ndaw lu xëy di def gërëm ko ñi gërëm ko ku ko xeeb xamoo la la war ku ko xeeb xamoo la Asfiyahi ku ko xeeb xamoo la la war te nga daw tëb yàlla jom ji déggal loolu mag mu ndaw taxaw at yu néew du tax nga ni bul bay awaaw toolu wuy ma téel ma ko noonu neex na ba pare ma daal di dem publicité daal di dellu si ndax nee naa leen ñoom it ci mbiri la nu bokk waaye itam bàyyi leen xel maa leen ko garanti nee naa leen maay ki ko assuré du ngeen ma laaj loolan la picc mi coursier coursier yow mi nga xamante ni yaa yor ay bagage fàtte ko sa kër te génn nga mënoo tourné tali bi xat na ay te boo leen soxlaa dañuy bàyyi lépp lu nuy def daal di ñëw yow mi nga xam ne yaa ngi ci sa bureau am na loo fàtte ci sa kër bëgg nga cee jot léegi léegi fexeel daal di jokkoo ak picc mi coursier yow mi nga xamante ni tabaarakallah yaa ngi liggéey ci sa bureau mbaa nga nekk nekk ci sa kër mba nga soxla ordonnance febar lol bëgg ku la ko jëndal gisoko mba legi gis nga lu pan ci bir kër gi jaaxle nga gan nga fa nga dëkk mino fa dara kay ma bolé la ki nga xamni bu ma la joxé numéro am boo ko legi sa aajo da di faju jëlal mu ngi non way ca 33 la si 820 10 33 820 11 10 nga daal di ci numéro téléphone bobu le nga xamni moy portable bi 77 966 69 69 dang koy jot wax ko fo nekk ci saa mu daal di ñëw daal di lay indi li nga soxla bu fekkene technicien

sama secret waañ mooy tamaate Podor duma ko weccoo ak dara man moom laa taamu ak moom a yàgg si géej tamaate Podor dañ koo liggéey ci anam gu sell loo namm si togg rek mu ànd ak yow indil la gu tamaate piir bu amul fenn joxit sa togg couleur gu rafet ak xet gu neex cafka bi ak xonxaay bi la ñëpp di wax tuuti rek ngay def am lu bëri noonu la sakkane ak tam bii di ñëw mooy sama àndandoo Tomate Podor suñu secret wañ Asfiyahi FM ay téere xam-xam yu bees yu yéeme yu jafe yu ay kàngam yu mag xaatim ñoo feeñ fële ca librairie alburaax di maakaanu xam-xam juróom benn téeméer ci ay tuuru téere 600 titres am na ca librairie alburaax Sénégal di kër gi jëkk mool ay téere jëm ci xam-xamu alxuraan ak mbindu mag ñi ñu ci nasaraan ci librairie alburaax Sénégal am na fay téere diine l'islam alxuraan tafsir hadis Yoni l'islam tasawuf ak jaar-jaaru wëli wi ak sunu kilifa diine yi chez Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick El Hadji Abdallah El Hadji Ahmad Dem, Seydina Limamoulay. Amna Télé actualité politique littérature ouvrage scolaire ak yu dictionnaire ak librairie Alborar Sénégal Neketi 99 rue Amadou Assandoy, angle rue Mas Diokhane résidence Serigne Babacar Sy téléphone 33 842 21 22 77 878 72 72 groupe Salba Alborar Sénégal moi édition Alborar Victor Lebrun les trois petits points les points sur les i Studia Salba Alborar Sénégal fanweeri at la al-quran. Al ngir fas ni lawal ay bànqaasam ngir mën ko am fu nekk ci réew mi ak ca bitim réew groupe asfiyahi point org asfiyahi tv asfiyahi fm 97 point 3 dakar 103 point 9 tiwaawan ubbil nañu buntu bépp jullit ak mbokku taalibe tijaan yi yàgg am yéene dugal seen loxo ci liggéeyu asfiyahi gën ko dooleel si wasaare diine ji ak tarixa tijaaniya mën nga participer par orange money dangay tàppe 10 144 10 62 10 11 10 nga daal touche appel sonopé nga code bi 34 26 87 daal si montant bi nga fas def si liggéeyu Asfiyahi da ci bëgg am ay leeral mën nga 33 820 11 00 wala 78 459 30 30. Je suis Tidiane. Je m'engage. Boki, c'est une radio bi FM 97.3 Dakar 103.9 Tivaouane Ibil na len service commercial Wow, service commercial pour Asfiyahi FM daal dina leen tijjil ay buntam moo xam ay spot publicitaire bande annonce événement communiqué avis de décès Madame Tagué, avis de perte Madame bagage yu le réer wala lu mu mënti le mën nga ñëw ñu FM 97.3 Dakar

ah Asfiya FM. leeru diine ji ak tarixa bi. ya jara tantal Rasul jar nga màggal. yaa jara màggal nabi jar nga màggal. Publicité sur Asfiya FM. suñu diine suñu tarixa suñu métier suñu daayira suñu yoonu Tiwaawan. tam yadal alquran ca këram soorami bàyyi nga ni mu loon ñàkk ba am la Omar yow Omar naka kon yow da ngaa xam sama secret kon yow tamaate Podor bi yow da ci ciy jàpp di naan di diw Omar ca këram <laughs> waaye déggal doon de ay ca ñu dem nga ne alquran ca Nour Seydou Nour moo ko jox jàllabem ca Dakar sandu kurusu ba gammu maa ko woy Cheikh Firi Seydou fu sànni ko mbubbum ma dan waxtu wi Muntaga Taal Muntaga Taal bay me géy njare Muntaga Saal bay me géey njare bay la min jiin bay la min jiin bay ma tar jiin bay la min jiin bay ma tar jiin aji mud baddu mbur aji mud baddu mbur Moodu Géey ci mbuur Moussa Seck bay aji Siise me dëkk kees mag ñu yiw ñi yiw ñi ndaw lu xëy di ma gërëm ko ñii gërëm ko ku ko xeeb xamoo la la war ku ko xeeb xamoo la la war mag mu ndaw taxaw at yu néew du tax nga ni na ma sama taximaan boobu lay ma dikkee sekk ma dikkee déggal ma dikkee ñaa ma dikkee fan nga nekk ziar naa la di la bégge jamono ji tembe yaa ngi ci kaw tali bi waaye dégg naa marché bu bees jaaykatu fukk jaay boobu la di kontaane benn waaye woo ma léegi ni ma yokk na rajo bi ba mu sës ma ko demal nga laa jël ma turam jaaykatu fukk jaay boobu woowaat ma téléphone wax ma ko ma xam ni moom it euh, nee leen heure bu baax bi bu jotee kenn dootul am jàmm xam dëpp néegi kenn ko miin seen kees kaay ko xam jëmb njaay jëmb ko xam oto bay teer mu wàcc nan wala ngay rabbi allahu ay ci tëjal ma ñu jëmb njaay ñëpp ko naas bay teer mu rabbun rabbi allahu lupp nigi kenn ko min jëmb njaay je ne baka nas bay teer ñu na rabbun tabaraka aw rabbun ta'ala wala rabbun ta'ala rabbi allahu ne yi kenn du ko nit jëmb njaay oto bay teer ñu ne rabbunta baraka aw rabbunta qaddasa aw rabbunta ala ulul ay ci mu ngi noonu may naa ko sama xarit boobu nekk marché bu bees Babacar Gueye Babacar Gueye borom ensemble yi yow yaa yey yokkal ba mu sës nee naa la oustaz Mouhamed Mbaye mooy borom heure bu baax bi ku ko bëgg bëgg na la itam mu ngi noonu léeg-léeg ma ni nit dina la soof te doo ko xam waaye bu ngeen neenoo yéen ñaar nga daan ni anakati kii nii la meloon moo tax koo gis war ngaa tey ci moom Omar ndax itam eh, damay faral di wax wax ni kenn ku ne boo bëggee nit rek nit ki dina bëgg waaye itam nit du bañ nit waaye da koy réere waaye ñu ngi lay bëggee di kontaane bu baax a baax ma nga foofu ca marché bu bees di jaay ay ay ay ay ca nañ juboo ne la koy joxe leen loxo yi tafi tasu ñu daal di jaayu taalibe Cheikh du meer foo ko fekk day kontaan nga ne lan adaram nan di ñaanal yàlla dooti koy nan juboo yàlla dooti fay nu juboo ay ca loxo yi taalibe Cheikh yi ya di lan ah nan juboo waaw jàmm gën nan juboo jag saaw nan juboo saan am sikkir mais dama bëri woon tiitër damay fit ta nen day bu may dem waalo saara laa mën a génn sama loxo takk rojoy nag di au revoir nit ñi nga xam ne àll ba tàmmuñu di gis oto ak yooyu waaye na njuboo bii biir a ngi ci de bay bay nga ne na njubu dëkk yi na njubu dëkk yi na njubu tiijaan na njubu muritoo na njubu xaadir na njubu laayeen na njubu catholique na njubu nguur gi na njubu parti yi na njubu dëkk yi na njubu doom yi na njubu baay yi na njubu mag ñi na njubu ndaw ñi na njubu góor ñi na njubu jubbu jigéen ñi nan jubbu dëkk yi nan jubbu dëkk yi nan jubbu dëkk yi nan jubbu Mansoor ni la woon Mansoor ne fa woon Mansoor ni ñawoon ay wa roqaya kama maa ngi lay nuyu di la ziyaare di la kontaane ne man bu sax na mon nañu la maa leen rob fuuf fuuf madame Camara maa ngi lay bëgg di la kontaane ñoom góor bu baax bi jotee daal dootuñu am jàmm ñoom ñëpp nuyu leen ziyaare mer Mati Saw maa ngi lay kontaane Adja Aminata Dieng Adja Aminata Dieng yow aja Aminata Dieng yow mer la moo tax yow ñu ñu sama tay ay te ñu reer lan mer na mu naa la yaa mata mooy yàlla buur bi mbaal ay ca bu daal di daanu mën a di dugg seeti sambu bu koy may mbaaru Serigne Babacar si boo ko delloo fi muy commencé fa moo neex yàlla la jox maayam loolu daal sama yaram bi da koy daal di yëg Omar maa xam nga ni li may def yëpp tamaate podor bee ko def ci man fi mu toll nii tamaate podor tànk maa ngi koy lekk gis nga activité beeg loxo yi ndeysaan ñi ci Facebook bi ñëpp a ngi kontaan YouTube bi ndeysaan gis nga de ay ca ñu dem ci xoolam yàlla la jox yeneen bi fat la ci ah Cheikh Nampal la ci bu xoolam daan nga seede leen looloo daan nga mbay waaw amet kuy bañ fii mooy bii nag dama koy may koo xam ni dama ko koy yéene nee naa leen daf ma bëgg ma bëgg ko ma lool mu jeex ma daal ko bëgg lool ah, daal di dajeeg moom keroog zone bi mu jël xaalis bu bëree bëri daal may jox Cheikh Samba Cheikh maa ngi lay di la ziar di la kontaane wuyul ma nuyul ma sama ujaaj boobu la te joxal ma ko sama numéro ne ko boobu ba léegi déggante wuñu sama xarit la waaye Cheikh bëgg naa a yëgal ni man maa la sopp lool def la fii lool ngir lan yëg gi ak modeste gi ay ca mu ngi noonu kontaan bay naari nee bay naari nee na ñu maalum ma bay naari nee fuuta nee na nu ñun wolof ni mbay daan nga seede leen loolo Oustaz Malick Mbaye Bol Oustaz Malick Mbaye Bolé bégg naa la kontaane la Oustaz Malick Mbaye Bolé li nga def ci téléthon bi bég nañu ci lool kontaan nañu ci lool waaye di la béggee di la ñaanal yàlla salaam la ko yokkal dëgëral la kattanal la yow ak daara ji loolu ngeen di fay ne jamono ji tepp bi ma dàq marikati sama sama xarit sama jarbaat may naa la ko saam nga ne lan dégguma la na ci saalum yónnee nañu ndaw ne tundal ngee diine ji yónnee nañu ndaw ne yónnee nañu ndaw ne yónnee nañu ndaw ne tundal ngee diine ji tundal ngee diine ji asiya yi la ñuy waya tundal ngee diine ji ariyeer moom dafa am wala bëggoon benn secret yu ne nañu ndaw li sama ci wàcc benn gis nga way gisal ko mu ak ndaanaan sàmminaan yónnee nañu ndaw li waaw kay bàyyi ko foofu Omar amee naa la cinq mille tey moom damaa indaale xaalis bu weex tàll yónnee waaye bëgg ma may la ko bay si ali furaas gane benko ki sa bay si na ki sa yónnee nañu ndawle daal dundal nga diine ji yónnee nañu ndawle wàcce bi yónnee nañu ndawle loolu laa la ko nga diine ji dundal nga diine ji diine ji ah dundal naa la ko teen bi ah, xam ni teen bi sam teenay xalifa mbay demal ma dégg tundal nga diine dégguma la wax ko tundal nga diine waxat ko sa ñu dem bañ a jaay nag wi ëpp naa def ma wax na naa la ko dégg la sam waxaatu dundal nga diine ak lan tundal nga diine sam sansel yeesal tariqa indil ma ndongo ya yeesal nga ndongo ya Baye Oustaz Mouhamed Baye Moussa loo wax nga kër sëriñ Habib sama sëriñ góor gi ndar ndar waa Gallo laa wax nga ne waaw waaw Gallo jubóo nañ danaa may borom kër bu baax daa bañoon rek waaye nangu na de Omar borom daara ji areel ma sama directeur maam Omar kat saa yi ko sàngoo yee mu dugalal ma orange mo ne bàyyi foofu Oustaz Mouhamed la yuuxul nga ne kër gi ndar ndar la daal be seex yu leen sàmm kër gi ndar ndar ana soppey sëñ Babacar loo ci laaj ku ne fa nga toog boo bëggee sëñ baaba aca dalo na loxo yi jóg aca jërëjëf ndar ndar la laram ya jolli na leer Lamia jolli naa jundar maami Serigne Ahmada maami Serigne Habib sama Serigne góor gi ndar ndar la góor gi ndar ndar la góor gi ndar ndar la déggal borom daara ji Mam Omar sama directeur wuy li sa wax nga ne xat sa amal kul ak la fil mazari duna ku mel ni kan fi ndaka haqqan madidatun jamal jaa góor gi ndar ndar la can

da nga koy bëgg a àmbale rek bokk foo jëm ñu ànd ak moom doo lekk mu ngi noonu sàmm nga ni leeram ya jolli na leeram ya jolli na góor ci ndar ndar la maami sëriñ ahmada waaw waaw maami sëriñ habib sama sëriñ góor gi ndar ndar la waaw góor gi ndar ndar la dafa neex 88 628 078 ay ci dugg si leen sama xarit dina mën naa leen asalaamaaleykum waay waaw waaw way ma la nam way way ma la sala ma la way wañil ma radio bi ci ginnaw way darul abibu non na way way ma ngi ni borom heure bu bax ma ngi ni way heure bu bax bax heure bu mag bi tamit am na le heure bu mag bi waaw waaw bu moy heure bu mag bi heure bu mag bi heure bu bax bi waaw mais ma jamm la teewoon nak way jamm ma teewoon nek ci dëkk bi rek way yalla yalla yalla nek ci biir yalla yalla jamm bi amin ya rabbal alamin ma ngi lay ziar bari bari wona woyi mam alaji malik de a jarama seydi alaji malik bi o amna ɗum mbawi def ɓuɓawi mbay ɗon de walla joɗo joɗo jarama seydi alaji malik bi fal bi wallahi wallahi jeexna dina ko dugal bu sambi jeexe yow lo bëgg ma defal sen wallahi ma jaay de ayo ma ngi content ci yow sama nijaay luy sama yaay ju baax joju nor jaay wa sama nor xana ni wut bi leer Adja Nor Ndiaye sama yaay jooju fu mu nekk 88 628 00 78 saam nga ni lam leeram ya jolli na ñu daal dem. nga ana soppey sëñ Babacar ku ne fa nga toog boo bëggee sëñ Babacar a koy jag ñi ci marché yaay ja leeram ya jolli na maami ya na góor gi lan la sëñ Babacar borom daara ji lu mu wax sam borom daara ji laa na mu waxam déggal borom daara ji lu na mi sëñ Babacar 88 628 00 gi ndar si léegi xam naa ne dañuy buxante liñ bi doon maanaam moom loolu nag dañ ne naa leen bu heure daal di jotee jëm midi képp koo xam yaa ngi ci micro yi wax da ngay bës daal di ba xajal 88 628 00 110 wallaay tumaate pedoor bi dara du moom nee naa la mu ngi noonu rek ni mu mën a baaxul saam nga ne lan la siyama siyama nakaaru xayru quraan kazaka baliyuha hanan li marnaa saam way ma dama gëj way landak landam ak loo ci wax landak landam saam loo ci landak landam landak landam bannu booloo yaa fa doon sama leer loola si raji nga fii moom bay ma jël fi mu fi bul toqi yoonu tiwaawan bul toqi yoonu tiwaawan waaw ay waay yoonu Tiwaawan 88 628 00 78 yow la kan yoonu Tiwaawan waaw asalaamaaleykum bañ a wax nag dafa neex yoonu Tiwaawan waaw waaw ana taalibe seex yi ay ci asalaamaaleykum Tiwaawan waaw xam naa ne écouteur ba am problème mbaa mu bëgg ndeysaan ba taxaw di jooy ndax nee na tekk xam naa ne xol baa sedd nga ni bul toog yoonu Tiwaawan de ko wax muy dégg boo ko dee wax sama xol day sedd ay loo ca wax boo ko xam dana jar nga def ko nim tool Serigne Baba naa la wax loolu bu ma tollee fii Adja yaa noor loo wax nan dal du mar ah. sunu mar wi yaa nan kon yaa nan dal fi raw ko nan dal ana soppey sëñ Babacar ana soppey sëñ Babacar daana garab kuy bañ cari Ahmed Jamil garab seet na way na moom cariya dëggal li ma xool tocca datte may xul war nga far waara ku la xool xool dootul xool sëñ Babacar kër gi ndar ndar la ku la teg doo la mit leen sëñ Babacar ku la fay doo ma ne keneen moo marché bi mel marché bu bees jamono ji naka ngeen di def bu ngeen di jaayoo mbaaru Serigne Babacar Sall yasa idan sabaki usabi an fi baraki la taqiran naki zaki jagi sopp Serigne Babacar dama way ñëpp way nañ maam xalifa baaba wax na ku ko way sëriñ Cheikh Tidiane Tall mu ni waaw xat lu wax ay ca ñu dem billaahi mislu yow sëñ Babacar yuraaw fi zamani ku mel ni sama maam dootul am ci soda déedéet anta alladi nilta min mawla jamal talata 103 minutes moo la dese waxoon naa la ko bii passé dinaa la ko waxaat tey ay ca 98 28 00 00 namoon naa la Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy dama koy solo tuuti ak Abdou Aziz Ndiaye doolu Fama jaxaay lu la tee di xaajooy si le vrai Sénégal yaa woon ne garab kuy bañ cari mooy lu daal neex lool lool lool lool waaye ginnaaw nit ñi leen maa namoon nag ma ne ma namm leen te itam suba xam naa ne du ma def noonu may la mal rëcc altine talaata foo ma daan leen ko digal ci àlarba jeeg alxames di ndeysaan lim lool lool lool lool Abdoulaye Ndiaye nag Abdou Aziz Ndiaye Abdoulaye Ndiaye moom faaw ma koy teg ndax nee naa leen bu ma ko doon teg bu ma génnee ci mbedd bi nit ñi dañu may teg ana Abdoulaye bi ma leen dama koy teg Abdoulaye nag moom nee naa leen mooy sama fas ndax ma doon duggee départ ci émission bi man la euh, duggee mu daal di ànd ak man ndax bu ma ci duggee nag ko saabi an seen bare ci dëgg ñu ngi tax man ci tam 128 la bu 078 nee naa ko ci bagage Fatou Moussa Diop daawul léegi ni kenn ñoom Sénégal, 33, 220, 11, 10. boo leen daayira bi loxo yi salaamaaleykum sunu maam ja nee na illi ಇಲ್ಲಿ ಅರುಜೋ ಅರುಜೋ ಪಾಪ ಕರುಣೇನು ಇಲ್ಲಿ ಅರುಜೋ ಕರುಣೇನು ಇಲ್ಲಿ Babacar loxo waxat Pape Abdou Aziz nga ne Babacar loxo ca sopp Serigne Babacar loxo ku bëgg Serigne Babacar loxo ca kaw xanaa fi amul sopp Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar loxo ca sopp Serigne Babacar loxo ku bëgg Serigne Babacar loxo ca kaw ku bëgg Serigne Babacar loxo ku bëgg Serigne Babacar loxo ku bëgg Serigne Babacar loxo xanaa sopp Serigne Babacar yi ku bëgg Serigne Babacar loxo ana seen loxo yi na jóg loxo ju aajo gaaw na fa ma ja amina ta jeg bàyyi li nga def ak sa loxo yi loxo ju yaa aja asu borom benn baraak waa benn baraak yëpp képp kuy soppi sëñ Babacar aja sa loxo waa parcelle aj leen seen loxo yi prince mbay yi sama téyeer bu baax boobule sama rakk ay ca ajal sa loxo ca kaw soppi sëñ Babacar yi Abdou Aziz nga ne lan fii ci biir ci waawan mbay nga ne loxo ju aajo gaaw na fa mbay bu gaaw nu mel atu ko gaay yi naan di ko may Abdou fan la noonu nga li waxal fii ci biir ci waawaaw waxaat ko Abdou ana soppey Serigne Babacar waxaat ko Abdou Aziz nga ne lan ana soppey Serigne Babacar waxaat ko Abdou Aziz Ndiaye jug leen magal Serigne Babacar may naa ko Famara Jéeme sama soppe bu baax boobu la di ko béggee nga ne lan Babacar ku bëgg Serigne Babacar ñu magal Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar waa sama tërëndoo maa ngi lay ziare Pathé Touré Pathé eh, Touré nga loolu day déggal Pathé Touré nga dee lan Abdou Aziz waaw waaw Ami Fall mi la wa alayka salam wa rahmatullah ana sabi ziar bay man talibe la ma ngi lay delo ziar way ma ngi lay delo bege koku kan la nonu marché bes marché bes muy kan mamadou thiaw mamadou thiaw ma ngi lay ziaré ya naka tonay way naka marché bes jamono ji ni bege top sen daaw gatti ba yeena ngi ji contane way ni bege bax ma sha Allah xam nga abdes ngay nak dama ko bëggal sama bop Abdou Aziz mii di way waaw ma ko bëggal sama bopp ah maa bëgg ba mu jeex ma bëgg ko ba mu jeex ayca mu ngi noonu daat na de Mouhamed Diaw mu ngi noonu dana ma marché bu bees nee leen waa marché bu bees fa bëgg a tux waaye bu mu siiw na yem diggante Omar temps yi faw mu tux marché bees waaye problème bi naa la xamal dara boo fi tux de muy bàle dalu sàppar yooyu boo ko deful de di a dox mu tëla da xuus par force de ca kaw Serigne ku bëgg sëriñ Babacar loxo ca kaw ku bëgg sëriñ Babacar loxo ca kaw ku bëgg sëriñ Babacar ak lan ma am ku mel ni ki may waaw waaw Asfiyahi FM dootul gënti waawar ku bëgg sëriñ Babacar loxo ab gawar ku topp ca moom loxo ca kaw loxo lu mu wadal nga daal di ko for loxo ca kaw Babacar xob nga war ku toog bu a Abdou Aziz nga ne lan. lu mu nga daaju. waaw loo ñuy tere kon loo ñuy tere. loxo ca bàyyi coow li bàyyi xuloo. kon mel ni tàbbi mel ni man waxee te ak dajaloo. pour na fekk da ngay daw yaay daw gisal bool bi wala ne xamaa xamoo xuloo dafa wees. Abdou Aziz Ndiaye lan moo tax. wa'tasimu bi hablillahi jami'an ci biir almeeri abdu xam nga ma wayi ma daal di kontaan nga ne lan boo xamul sëriñ ba eh, may def ci bay jëmiil sëdd la ci ci bay bëgg Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar loxo ca kaw fërsa wala min ngay sama xarit Lamine maa ngi lay bëgg di la kontaan Lamine bi di bëgg lool lool lool ngay sax moom it heure bi jotee dafay topp sax Lamine bay di ko bëgg Lamine kontaane naa la bu baax a baax a baax sax nga ne lan Abdoulaye ku bëgg Serigne Babacar loxo ca ku bëgg Serigne Babacar loxo ca kaw aram loo Kumba Jam Baye Seydi Jamil Abdou Aziz nag saa yu tollee fii dama wax ni dama koy may Mouhamed Sall sama rakk jooju nekk ba parcelle di ko bëgg di ko kontaan dama bëgg parcelle am Babacar loxo ca kaw laa la jël dama bëgg parcelle fexe leen ko sori xatida tey damaa jëloon conseil damaa jëloon conseil damaa jël conseil trois jours ñu ne ma naa liggéey si waat damaa jëloon conseil lundi mardi li amul fenn ba xam nga conseil bi mu ñu toll ma xëy si waat waaye ndeysaan ñoom la jeex sama soppe yi ñoom ñëpp ñu ngi naan ma oustaz waroo jël conseil jëloon naa de waaye oustaz Babacar Niang moo ma jaxase directeur ñu ko na liggéey si conseil bi daa maa ngi nii ñëwaat naa waaye suba boo moytu damay jëlaat conseil ay ca mu ngi noonu Abdou Ndiaye di ko bëgg di ko kontaane 88 628 070 Njaga Samb nag day nekk sama xel way woomu way Cheikh Seydou El Hadji Malick si ndax Njaga ñaari fan yi kat moo fi newoon di ma bégal di ma kontaane tabaarakallaa jëre intérim ma so sek sànq ma ni picc mi coursier ni ma kenn dox coursier waxal coursier air bi kenn du ko liiraale waaye ca Tamandela Samb foofu bi mooy si si si biir Hadji Malick si euh, radiyallahu taala anhu sama góor boobu leen naa leen tamit ko nekk lool lool waaye tamit di nuyu sama jigéen sama xarit Fatou Wade mu sopp ma lool mu bokk nekk ci kër gi ndeysaan fi muy toog bëgg ba mu jeex Fatou Wade maa ngi lay bëgg di la kontaane di la ziar bu baax a baax a baax a baax ay ca Fatou Wade di ziare kooku nga xam te ni mooy sa doom Mouhamed doom ji di ko joyeux anniversaire borom un an yàlla yàlla sàmm ko aar ko guddal fanam lool lool lool lool lool lool muy suñu sag muy sagam mu ngi noonu di ko bëgg bu baax a baax waaye itam di nuyu ñooñu nga xamante ne mooy waa Daaru Habib yi soppe Daaru Habib yëpp waaye moom gëj naa Daaru Habib yi soppe Daaru Habib yi nuyu naa leen ziar leen di leen bëgg di leen kontaane mbooleem koo xam ne rek bu heure bi jotee te nga bokk groupe Daaru Habib yi kontaane naa la bëgg naa la bàyyi fa kenn jaar naa ci tur yëpp yéen ñëpp maa ngi leen di a njaga ay ca wayal ma sama góor gi Seydi Hadji Malick nga ne lan lu tax ak lan ba kenn dootul zikar waaye tamit fexeel ba jumaa ak jàkka yi nga daal di ko fi jëlee wax naa leen ko bu yàggul wa kam rafaata manarati shariati alaaji malik moom la wa kam axeeyta sunnata xayru urbi wala ujumi alaaji malik moom la top bilaay ba jana moytu yóbbu jàng yóbbu jàng ak ay am ay ay jàng déggal alaaji malik si rek la muy riim li ko sëñ Babacar wax wa kam rafaata manarati tariqati comme sa xayta fiyal war naa min wirdihi asibin omar xam nga fan yi kan laa bëgg a seeti borom alburax laa bëgg a seeti librairie ba librairie faaw ma daal di fa dem euh, directeur bu dee yaa ngi may dégg faaw ma daal di jël numéro bi nag daa dem librairie nag daa am sëñ Babacar Babacar Ndiaye faw ma ko nag Babacar dama a seeti nga jël ma suuf nag 88 628 00 78 ay ci mu ngi noonu ñu dem nga ne Sarr ah, ñi nga xam ne ñu ngi ci Facebook bi di ma topp maa ngi leen di bëgg di leen kontaane bu baax a baax a baax Oustaz Malick Mbaye bolle maa ngi bëgg loolu léegi léegi mu ngi naan bu ma seen déggaat Abdou Aziz Ndiaye bi moom mi Abdou Aziz waayam la Abdou Aziz ah kuy yëm ni waykat nga ba tagkat yonent bi dina fekk ba solo la yéene donte day tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taalibi Sidi Ahmed ko kontaane ñaan yàlla mu daal di ko sàmm aar ko kàttanal ko guddal fanam lool lool aroon Arona Diaw waxal ma rek Ndiaye ne la bàyyi nga daal di ma yokkal baafur bi Babacar dama bëgg marchandise yëpp di riir ay ca mu ngi noonu caabi Diaw yokk leen ma rajo yi Jabel Seck ga nga nekk Ndiaye Jamil Yo fi mu dama toog sama yaram daa tàng te kat dëgg bu mu dëgëree kat sama man jaaxal na fi mu toll nii sama kàddu xel yëpp mu ngi noonu waaye bu may dem dinaa la ko bàyyil de moo ko la sax ay ko ndeysaan yooyu daa ko di say attaque ñoo weesu Aziza Ben Zabon di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax sama doom jooju le ci ko kontaane ay ci ñu dem nga ne lan doomi soxna pour ma dee sama doom ji ci solo la yor noonu bi muy dugg si doomi soxna asu kenn jee dara bu la jot fii jadwaa fii jadwaa fii jadwaa bay ak tuuba day doy nga naw ñi fii jànduwa waaw bismillah may jàndu way ci kan di ci béggal ku sopp ko ci doomi mbay bayatu mi ma ku ko gërëm seydi jamil gërëm na ma ku ko gërëm waaw waaw fii jànduwa fii jadwa waay ab xale yaa ngi teew yaay sunu baay fii jadwa fii jadwa fii jadwa waay ab ni doy na ndaw ñi fii jatuwa waaw kaddu njaboot ji yaa ko yor. ay ca mu ngi noonu ay ca bu ma tollee foofu ndeysaan soppi sëñ Abdou boobu leen Fatou Wade di la bégg di la kontaane bu baax a baax a baax a baax di joyeux anniversaire sunu doom jooju borom un an yi mu ngi noonu di ko ziar bu baax a baax ñaan yàlla mu daal di guddal fanam yokk ko at yi yow Fatou da ngaa bokk ci man ndeysaan faa Wade wele nee naa leen moom mooy borom samedi nee na ma oustaz ma ne ko lambay ko mu ne ma boo waree ci euh, naaru góor euh, picc mi euh, heure bu baax bi bu samedi nag ma koy daal di aal man ko waaw ndeysaan restaurant la li olof di faral di wax dëgg la nee na may ga boo dugg wala restaurant boo dégg ñu taxaw ko ci bool bi naan ko gaawal desitu jàmbur lay lekk waaye ko gis ñu toog di ko seetaan muy lekk xamal ne daa jënd loolu bu baax bi maa ko jënd waaye bu sant maa aal ko anta namoon naa la lool sama feuille de route ma ko waxee rek mu daal di daal jëm ay ci Omar ñu dem waaw ndaw ba la baax day warmal ma waaw ndaw ba la baax day warmal ma waaw ndaw ba la baax day warmal ma borom daara ji nee na yaa dira yow sora mbay nee na yaa dira yow sora mbay nee na yaa dira yaa sës ci moom rek doo doo doo yaa sës ci moom rek doo doo

Touba waaw Serigne Cheikh moo ni soko ni war defal ca soxo ci safara kon mu def ko caate xam ni kon jàmm rek moo cay doon mu jëm Serigne Cheikh nee na su ma doon am taalibe benn laa cay am mooy atum yi xaw may atam lu ma neex teg ko ngir joomam ku fi di rakk maa ngay doom Cheikh ni ab di kii Omar bu ko xamee loolooy li am bu ko réeree baa ko dee dara du la dal fii jadwaawoo fii jadwaawoo fii jadwaawoo bay ak tuur doy daa mag ñi doy daa daw ji fii see fukki at ak juróom benn see fukki at ak juróom benn yow ci la la sëy bi mbay si yan sari sam bi naan yaa ci gën kon doxal ak yàlla jëm ka baddu ana fa yàlla jëm ka xale yi ànd bi yàlla jëm ka walaay ànd bi yàlla jëm ka loxo yi ànd تمتابل النبي يلا تمتابل النبي يلا تمتابل النبي المحبوب عبد العزيز سخل في حماية العزيز لا لما يوخر مكنوس بيتك رجل ديلا درم بيتك رجل ديلا درم دبختك رجل ديلا قرم جميلتك رجل ديلا قرم سرميتك رجل ديلا درم شفتجانتك رجل ديلا قرم سرشتك شختك ديلا قرم لو نمو woo feeñal li nga yor xanaa nëbbu ak say pouvoir naan sax ci dëgg dëgg li moo di dëgg li moo di dëgg li moo di dëgg yow nga ne digal li mooy li am yow amuloo jot service beta du taluloo lekk service beta du taluloo naan service beta du xamuloo noo service beta ndax nangu woo ñu di ko sax juróom yi fi mbay bàyyi naan ci sax juróom yi fi mbay bàyyi naan ci sax yow nga nu diggal li mooy li am yow mësuloo digg bu ko defati bàyyi mësulaa wax lii bu mu amati mag mësulaa wax lii bu ko waxati kon zéro fat yàlla naa jëm kaanam zéro fat yàlla naa jëm kaanam zéro fat boo xoolee li ma lay wax rek mooy ànd bi yàlla jëm kaanam foofu nga xam ne mooy zawiya Serigne Cheikh Seydi Aboubacar si di jàng burdu waaye tourné gisatoo Serigne Abdou ak ni ngeen meloon ak ni nga ko daan way metti lool metti lool metti lool ma ne ko mu ngi noonu ndeysaan al yow mu yow maanisa am ne nosa xatarik wala aysa aysani nosaii nosa kadari yal na yàlla daal di ñu tas ci barke mu ngi noonu 88 628 00 78 ay ci Omar ñu daal di dem mais waral ma abdoulaye Mbaye foofu waaye wéy ma. Omar Omar Omar Abdoulaye Mbaye foofu Abdoulaye Mbaye am na mooy yaa Muhammad yaa Habibi neex na ma lool mooy mooy yaa Rasul yaa Muhammad yaa Habibi yow mais ma la fa ilayka yaa de Abdoulaye Mbaye nga ma yóoree foofu sama xel bi ne def ci moom lu lu ma ne lan bu ko def mbaam ngir weexateenam bam ko singee ca kaw gaynde ni ko du mbaam li mooy gaynde di dellu ginnaaw di xool gaynde marche arrière bi xool gaw bo di marche arrière bi xool gaw bo waaw ma faf rek daal ci diwi këram waaw waaw fii jadwa fii jadwa waa abdu day nga Sénégal rawatina yëmbal fii jadwa fii jadwa fii jadwa bay abdu day nga Sénégal rawatina yëmbal waaw wala ma way du lu ma sos dama fee lu man ñi fas man na sekkoo muy lu ñi fes sama wet det tu man nga jam waaw fii jat ayaa fii jat waaw rekk sëriñ Cheikh Tidiane Sy dara lu la dal fii jat ndeysaan mu ngi noonu mu nekk way wu rëy woo xamante ni alxaaji dudu kenn mbay way na ko sunu baay sunu maam jooju la di sëriñ abdul aziz si al amin ne naa leen mosuñuy wax sëriñ abdou te sama xel du daal dem ci oustaz omar ndoy moom nga xam ne mooy imam de la jeunesse nekk foofu ba yëmbal di waajal xadaraam bu mag boobu la waaye sopp sëriñ abdul aziz al amin lool waaye su ma ci toll la xel mi day dem ci sulay job imam oustaz di ko béggee di ko kontaane moom it kazalika su ma suñu tuddee sëriñ abdou sama xel day daal di dem ci moom waaye rawat nag nga xamante ni ne naa leen mooy ndax nu am na am naa xadaratu tijaaniya oustaz pa fata sarr mi nga xamante ni tabarak tabaarakallaahu moom it ca liggéeyal na Serigne Abdou liggéey bu rëy waaye heure bu baax bi jotee sama xel day daal sama xarit boobu leen nga xamante ni naa leen euh, moom la directeur tuddee euh, l'homme de situation Pam Makhtar Lo Pam Makhtar dama laa gëj a gis dama laa nama lool lool lool waaye du nuyu Aziz mi nga xamante ni tabaarakallaahu Aziz mi ñu tuddee Serigne Abdou nekk fii nag ci géej waaye nag Aziz bu Baye Alé Ndiaye Aziz yow fan yëpp gisuma message yi am di tabaski defe ba a a baax ngi noonu ay boroom rajo waaye nuy Baye Malick Thiam nga xam ni bu waxtu wi jotee day daal di yokk daaru bi yi daal di kontaane di ko béggee lool lool lool ay ca Abdou nga daal di lan Omar lu mu wax way wi nag way wi dafa ma neex bàyyi loolu ñu dem dafa ma neex lool lool lool Euh, sama xel day dem ci ndeysaan Dame Ndiaye nekk foofu nga Kër Massar di ko béggee di ko kontaane moom it waaye di béggee ñëpp ñoo xamante ne rek euh, ma lool ma daal di foofu ndax tabarakallahu ndeysaan Omar de sama xef lay taxaw day da moo raw ma de ay baaraam de la may wan du kuy am di nay kii du kuy soow la yennaat gi rag bak sana lifa bi du kuy bee di ñam bak du kuy di nam bat du kuy mer Asfiyahi FM waaye mi ngi noonu daal di bëggee di joyeux anniversaire sama doom jooju nga ne mooy Mouhamed Mouhamed dundal doomu fàttuwaat du wele jooju la ay ca ko kontaane ñaan yàlla mu daal di ko def magum l'islam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nabi dundal ba doyal

tax nga juutal sa ñam bët yegal na Euh, bu fekkee ne waa parcelle waa Pikine ñu ngi may dégg suba daal Babacar laa bëgg invité Babacar mu Pikine ndeysaan mun way lool lool yaru lool Babacar bu fekkee ni moom it mu may dégg man noonu laa amee envie di invité ah toog ni rek sama xel daal di nekk ci kenn bu fekkee ni sëñ Babacar mu ngi may dégg mbaa koy dégg te mu dëkk foofu la ca Pikine na ma ko waxal ne ko Oustaz Mouhamed Mbaye nee na daal suba ci heure bu baax yow la bëgg invité daal di eh, wa قاتلات أي هدية نكحتك الفكر يا سيدي Babacar bu fekkee ni mën nga maa woo suba yàlla bëgg a invité far mu gis nga yàlla nee naa leen dara yaay nee ma salaam yaa oustaz maa ngi ziar maa ngi nii yow laay déglu kon xam nga ni suba nag dama laa bëgg a invité nag 1h54 moo jot nag ndeysaan moom daal xaw mu am coppat sama njëg Babacar Diop bu dee yaa may dégg woo ma gaaw ba ma mënee woo sax appel WhatsApp bu la neexee bu dee crédit bi doxul ndax nawet bi itam nit ñi day compalé banque gi ni bàq bi woowee noonu la poos yi tooyee woowu dootu dootu gis dara galoo ngi nii tey maa ko may lu mu ndékkee ndax man du ma ndékkee mbedd saveur si laay ndékkee ndax mooy sama sponsor bu njëkk ay ci ñu daal dem Babacar Diop foo nekk ak foo bên các Diop bu dee Babacar Diop nee na maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay euh, maa ngi nii en ah, di la suivre euh, suba na ko bàyyi xel nag ci heure bu baax bëgg naa Pikine ñëpp waajal ko moom xaritu euh, juma la waaye bëgg naa ñëpp rek xam ni ndaanaan pire laay invité nee naa leen bu doon téléphone laay jaay du ma jaay deuxième mais ndax wóorul première mai rek laay jaay te Babacar mii ci première mai la bokk ndeysaan bu fekkee ne yaa ngi may jégg daal ah, bëgg naa la invité a daal di xam ni yaa ngi yaa ya, ngi wàccu ba euh, Babacar Diop euh, xaritu juma ndeysaan mu ngi noonu salaamaaleykum maa la wax loolu mbaa yëg nga ni yow laa bëgg a invité suba waaw daa mel ni yëg naa ko de ñu ma koy waxaat léegi ah waaw wax leen bu kenn woo téléphone de nañ ma may ma wax ak yow ba pare wuy ma ah. benn yooxu rek laa soxla benn yooxu rek benn yooxu rek waaw bu neex rek. loolu moom mbaa du mbaa du kii. xanaa déggoo li ma la wax suba. subaay dàq waaye publicité bi laa leen bëgg a wan wan di leen du ma invité mukk deuxième mai première mai rek laay invité te yow maa la soob. publicité bi daal nga bëgg a jot nii léegi léegi nii. mu toll nii benn minute ma dese ñu daat may génn studio bi. wër na daayira bi. li kan moko meuna way xol ko rek deggal degg ko xanaa boobu baax na ni ko waxat ko ma degg xola galo mom yow yaangi joy te invité gu ma ko kon de suba am ngeen problème demal ma deggat nga ne lan waxat ko ma degg deggal loolu min xamone nan amna koy wo téléphone ci suuf nit ñi dañoo bëgg buzz nag waaye mu ngi noonu sama heure daal dina jot waaye maa ngi lay ñaan rek di la ko sàkku suba boo mënee ñëw loo tardé tardé na la fi 9h fekk maa ngi lay ñaan loolu ci barke maam Alxaaji Abdoul Aziz si da baax heure bu baax baa ngi noonu 97 Oustaz Mouhamed Mbaye borom Daaro Habibi mu ngi noonu lii laa leen indiloon tey di waajal suba ci alxames ji nag daal di ànd ak moomu nga xam ne mooy Babacar Diop waa parcelle koy pare ñoom ngaañ ak ñëpp ñi koy pare ay ca bu jumte am léegi xam leen ni nil n'est parfait Oustaz Mouhamed Mbaye matur waaye bu matee jàpp leen ni sagu maam Omar Ndiaye la alkamaalu lillaahi ay ca taqabbalallahu rabbunaa daawatanaa mimmaa nuhibbu bihi bi jaah yaasini bàkk ba jóg na daaru xabibi joobe na maam Abdou wax na Oustaz Mouhamed Mbaye daaneel na ay ca ñu dem هي منية